nee na mbir mii nga xam ne moo wàcc fii tey ak képp ku di jullit ak képp ku yaakaar Serigne Touba nee na sa mbiram bopp la nee na moom Serigne Atou mii nee na wàcc tey nee na moom Serigne Mahmadan xam na ci Serigne lu bëree bari nee na ci diggam ak Cheikh Abdou Lahad waajuram ba nee loolu mooy sababu bi xew-xew bi amee. nee na mu ñëw teew fi ba lépp jeex nee na ci kanamu seex Mouhamadul Mountakha Mbacké nee na ngir moom mu ñëw fi jëmmal fi seex Abdou Lahad nee na li tax mu def ko mooy xam ku mu xam lu xewoon diggante Aatu ak seex Abdou Lahad Mbacké moom sëñ Aatu nee na am na cër bu rëy rëy nee na moom bi mu mujjee waxante moom ay kàddu yàggul dara. nee na bokk na ca la ko sëriñ aatu waxoon nee na ñoom ñaar mooy sin mujj wax ci kaw suuf nee na mooy li ko Cheikh Abdou Lahad wax moom mii nee na sëñ aatu dane ko li ma Cheikh Abdou Lahad Mbacké wax nee na moom sëñ Mahmadal mii di doomam nee na moom sëñ aatu dane ko su ma la ko nettali woon nee na nga di ko fiire sa digganteeg sëñ Abdou Lahad nee na Sëñ Aatu ne ko secret boobu du ma ko nett li mukk lu du yombal xiyaam nee na loolu kàddu yooyu la mujj waxanteeg Seex Sëñ Mahmadan nee na yàlla def sëriñ ma Sëñ Aatu nee na li ko booleeg Seex Abdou Lahad Mbàkke nee na Seex Abdou Lahad Mbàkke day koo xamante nii nee na pësteef lay téye ci nit nee na bi nu taxawee ñoom daara Hizbut Tarqiyyah nee na te taxaw ci jamonoy Seex Abdou Lahad nee na ca tàmbali bi ba nëgëni fuñ jaar rek moo leen fa jaar lool. nee na fépp foo xam ne nii rek gis ngeen gis bu tarxee suñu aatu jaar fa suñu laata leen fa jaar loo woon. ñu doon doxee moo leen ko waxoon. nee na leen ko waxoon. nee na ba si tey fii nag. moom ci boppam. nee na moom suñu aatu ci boppam. nee na Cheikh Ibrahima Diagne mi waajuram ci jur ko. nee na sëñ Atou sëñ Abdoulaye dana ko demal wool ma sa baay. nee na mu woo sëñ Ibrahima Diagne mi waajur sëñ Atou mën a ñëw ci kër gi. nee na sëñ Abdou Lahad Mbacké yéen doog moom. woo ko nee na mu woo ko ne ko. woo aatu mu toog. woo sëñ aatu mu toog. ne ko aatu mii de. xaw ma yow mii waajuram. nee na xaw ma yow mii di waajuram. gërëm nga comme déet. nee na xaw ma gërëm nga comme déet. waaye nee na waaye mu ne ko man de. gërëm mu ne ko man de sëñ Abdou Lahad gërëm naa sëñ aatu mii. bàyyi sëñ aatu ne ko man ma seere ci moom. sama ngërëm. ne ko sama ngërëm. ci ne ko sama ngërëm si sa biir ngërëm lay tàbb yow si Abdou kon nag mu ne ko yow kon suñu aatu man ngay suñu Ibrahima Diagne mu ne ko yow suñu Ibrahima Diagne yow ko yow miy waajur suñu aatu aatu bu dee ku ñuy jaay nee na mu ne ko aatu bu fekkee ku ñuy jaay la jaay ma nee na suñu Abdou Lahad ne ko jaay ma ko maye mu ne ko bu fekkee lu ñuy maye yalwaan naa ko nee na naa ko bu dee lu ñuy mu ne ko bu dee la nee na mu ne ko yalwaan naa la ko bu dee lu ñuy maye ñaan naa la ko. nee mu ne ko bu dee lu ñuy maye ñaan naa la ko. bu dee lu ñuy mu ne ko bu fekkee lu ñuy saraxale tamit saraxu naa la aatu mi. mu ne ko li ma am ci moom lépp. mu ne ko moom waajuram sëñ Ibrahima Diagne ne ko li ma am ci aatu lépp. ne ko jox naa la ko. nee na sëñ laa daal di koy téye nag. nee na téye leen ñoom ñëpp nag. nee na ngir nargal leen ci yoonu Seexul Xadim. nee na sëñ Abdoulaye da leen daan wax ne. su ma leen séenee ngeen di ñëw. nee na su ma leen séenee yéen ñii ngeen di ñëw. am dara lu rax ci yéen. nee na am dara lu rax ci yéen. bala maa am jàmm. nee na bala maa am jàmm. damaa dindi loola. nee na damaa dindi loola. yéen. moom nag. nee na moom suñu aatu nang. nee na li mu doon wut lépp am na ko. am na ci yoo xam nee na na ci yoo xam ne nag. moo am nee na moom mii du am sañ-sañu leeral loola nag. danaa nee na dana ci wax tuuti rek. ngir dalal xel yi. ngir dalal xel yi. ak fedd li ñu toppoon ci ginnaaw. ak li ñu toppoon ci ginnaaw nee na loola moo di. loolu wax nañ ci mag moom ay yoon yoon. nee na loolu moom si ñëpp Mahmadan mi ay yoon yoon. nee na nag dina ko si seexu naa mi yëpp taaw. nee na si ñëpp laa da ko woowaat beral. nee na mu ñëw mu téye ko fa. nee na mat na ay at bis. nee na juróom-ñetteelu fan ba. nee na mu woo suñu aatu ba mu ñëw. mu ne ko demal nekk si Cheikh Bara Khourédia. nee na mu ne ko bideel ba nga fekk ca Rumba. nee na mu ne ko nee ko sëcc naan. te ñëwaat fekk ma fii. nee na suñu aatu def loola. nee na mu téye waataat ko. nee na ba bis ba delsi nee na mu waat ko ba mu ñëw. mu ne ko delluwaatal nit si Cheikh Bara Khourédia. nee na bideel ba nga fa fekk. nee na nga ne ko sëcc naan. te ñëw fekkaat ma fii. nee na ba mu ko defee ba delsi nag. nee na mu di ko yeewi nag. ngir suñu aatu war a dem ci liggéey ba. nee na mu daal di ne ko. nee na mu ne ko dama la doon suude ak Serigne Touba. nee na mu ne ko suude naa la ak Serigne Touba nag. nee na loolu dara mën na ko weesu ci àddina. nee na ñoom ñoom amuñu loolu ci Serigne Abdou te moom am na ko. nee na li ko taxaw nu jub moom. nee na Serigne Touba dong la woon. nee gisul woon lenn lu dul Serigne bi. nee na moom ñi mu àndal nee na lam doon yaakaar ci Sëriñ di ko jëm mbébét nee na xam na ne nee na tey ku ko fekkoon fa mu nekk nee na dana rëccu lépp lu mu mas a jël Sëriñ Tuubaa nee na xeeb ko ngir war a liggéeyaat Sëriñ Tuubaa nee na yéen Sëriñ Seexuna nee na na ngeen góorgóorlu nee na lu jafe am leen ko nee na moom mi la ko sëñ Abdou Lahad dénkoon rek la leen di dénk nee na ñoom njaboot gi ñëpp la ko dénkoon. nee na dana ko àdduna du ma ko fàggul kenn. nee na ku ne mu ne ko mën nga koo fàggul sa bopp. nee na la ma def sama jom daal. mooy àll gënu jëm. dara. nee na kenn tànni leen fa dara. nee loola la jom. nee lu mu mës a liggéeyal sëñ Tuubaa. ñoom ñi njaboot gi la jiital ci biir. mu ne leen kon fondement am ngeen ko. nee mu ne ko ku am fondement. nee na dese. nee na suñu aatu nag. nee loolee leen suñ laat waxoon. nee na ñii di njabootam. nee na rek la leen di wax. nee dafa jëloon ak dundam sacrifice ko. sacrifice alalam nee na sacrifice jàngam nee na ngir ñi di njabootu boppam bu sacrifice la nee na jox lépp sëñ Tuubaa nee na bàyyee leen ak sëñ Tuubaa nag nee na yéen ñii di njabootam sëñ Tuubaa teg na leen loxo nee na góorgóorlu rek a ci des nee na sëñ ma yaasin ana ma yaasin nee na yow dégg na li nga wax lépp nee na yow yaa ngi moom xamante ngeen bu baax nee na séq ngeen lu bari. am naa yéen nag waxtaan. nee na am naa yéen waxtaan. ci jataay bii nee na du ci jataayu tey bii de. doonu fi nee na doonu fi. nee na waaye dina am lu waxtaan ak yéen de. nee na sëñ seexu naa mii. nee na daa am ci moom cër yu bari. nee na